agents municipaux maire yi Gueule Tapée Fass Colobane ñoo daal di génn di ñaxtu anam bi nga xamante ne nii noonu la promoteur bi di woyalee liggéeyu centre commercial bi nekk fii ci Gueule li ni mel nag daal di leen naqari bu baax a baax ndax dañoo jàpp ni amul benn droit di woyal lii di liggéey bi. article 6 bi kuréel dafa chargé woon réaliser marché bi sur fonds propres ci xaalisu boppam mais dem nañ ba ci biir gis ne yorut dara. du xaalisu boppam lay réaliser marché bi xaalisu commerçant yi ak xaalisu nit ñi nga xam ne dañoo bëgg ay place ci marché bi moom la nar a réaliser kii bi gis nañ ne ci article 9 bi durée du tra durée travaux yi c'était sur 10 mois 2019 lañ signé contrat bi tey jii la 2024 rez-de-chaussée lañ yem. anam bi ñu signé yenn contrat yi loole daal di leen métti bu baax a baax li ni mel amoon diggante maire bi fi jógee. ak kii di promoteur bi ñoom nag li ñu jàpp mooy dara leerul ci anam bi nga xamante ni nii noonu la yooyu le contrat lañ ko daal di signé. bu fekkoon ne contrat bii ñu def le mai en au mois de mai 2019 avenant la waroon nekk dafa waroon annuler contrat bii ñu def avril 2019 parce que avril 2019 ak mai 2019 matul un mois 26 avril ak 22 mai matul un mois. te conseil fii nii am na ci joo xam ne ñoo fi nekkoon boobu jamono 2019 ay conseil lañ nee nañ musuñu voté délibération buy porté ci contrat yi loolu nekkaat beneen problème. centre commercial bi am lu tolloog 2500 cantines ay at a ngi nii mënuñu fexe ba pare lii di liggéey bi. képp ku jël sa xaalis dugal ko foofu na nga rapproché wu au niveau de la mairie ñu xam yow la kan la ak naka la beneen bi nag mooy. ku dugalagul sa xaalis à partir de tey boo dugalee sa xaalis foofu mairie bi génn na ci ah liyeetul mairie bi parce que fu mu toll yi ñun bu ñu toogee di ko seetaan non seulement problème bi ñuy am mooy ëllëg si biir dinañ soxla ku yeggali marché bi sax mais duñ ko am parce que li mu lekk ci xaalis ci marché bi dafa bëri